mbokk yi di amaat mbégte rek bu baax a baax a baax saa su ne di jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen saa su ne di leen toppal événement pendant avant et après fu mu ne nii nag mbokk yi ñu toll ci li nga xamante ni moo di après événement bi nga xamante ni jàmbaar production indiloon na ko sénégalais diggante Modou Lo ak Siteu démb fële ci arène nationale ginnaaw nag lamb ji suñu borom may ki nga xamante ne moo di ndam muy Modou Xarañ Lo le roi ñu koy félicité waat bu baax a baax a baax encore di encouragé ki nga xamante ni moo di Siteu ni ko noonu nag ñu toppaatal leen li nga xamante ni moo di après lamb ji di ci dalal ay ndaanaan ma toog nag ak suñu grand le coach Pape mbay indi démb ki nga xamante ni moo di Modou Lo fële ci arène national xam naa du ma woyal samay kàddu lu bëri dama koy nuyu daal di koy bàyyi rek mu nuyoog bokk internet yi coach maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax. waa maa ngi lay fay di la nuyu yow tamit di nuyu internet yëpp. Mm-hmm. di nuyu askanu làmb di nuyu waa Parcelles Assainies di nuyu waa Rock Énergie di pour cent parcelle bi yëpp. ak champion yi ne parcelle di nuyu coach Lahat Diop ak coach yi nga xam ne jàppoon nañ ci combat bi yëpp maa ngi leen di nuyu te leen ziar. yaa di leen ziar amoon nañu waxtaan man ak yow lu yàgg tuuti jamono ji ñuy waaj combat bi waaye damay ñëw ak yow tuuti rek ci li nga xamante ni moo di préparation bi ak wàccaay bi ci euh, fan yi naka ngeen ko doon dundee ci làmb ji. waaw comme d'habitude xam nga tey yaakaar naa ne préparer combat jël temps bi mu laaj def ci liñ ci li nga ci war a def. ba jour si mbër mi ne ci wàccaayam bu bis baa ngeen dem bëri ji mhm. waaw loolu daal la daanaka du du du dudul wax bu gudd quoi. Mhm. mais foofu daal la ñuy tënku ñun suñu préparation. Mhm. ci en tant que naka nga doon déggee poids bi nga xamante ne dañ ko wax ci Modou Modou dafa jël pois dafa dis par rapport ak ñaari combat yi nga xamante ne jóge na ci. waaw c'est vrai que jël na poids jël na pois feeñ na ci combat bi mais aussi nekkul indilu ko jafe-jafe. parce que li euh, li taxoon sax pois boobu jéemuñu ci wàññi dara. parce que aussi njortoon nañ ne adversaire am dina indi poids boobu boobu bi mu indi woon parce que signature am bi mujjee defoo jóge États-Unis gisoon nañ masse musculaire am ni mu tolloon ak moom it dafa wàññi. Hmm. wàññi waaw. dafa wàññi waaw. kon euh, ci calcul bi est-ce que leen ci. non du question juum parce que tey ji la sa adversaire di indi doo ko xam mais da ngay jàpp ne tey ji lii baax na rek mu fekkoon ne diis naa mu euh, mu oyof yëpp ñun xam nañu ne. lu mu indi Modou Lo attan na ko. Hmm. waaw bu fekkoon day ñëw pour imposer pour bëre pour lu daan Modou Lo préparé nañ lu mu indi Modou Lo attan na ko. Hmm. waaye feeñ na ci bëre bi demee ba Modou Lo sax may ko ci biir bëre te jéemul dara. Euh, balaa maa ñëw ci biir bëri beeg yooyu noonu coach damay ñëw ci li nga xamante ni moo di géew gi ndax yaakaar naa ni loolu bokk na ci luy neexal làmb préparation ñaari mbër yeeg si biir géew beeg seen i entourage wala ñi ñuy àndal euh, démb gis nañ géew bi ni mu demee. xumb na jax na waaye am na aussi ay affaire yi fa xew si biir lan nga ñu si mën a wax tuuti démb ci biir. maanaam affaire yoon maanaam. gis nañ tamit euh, coup d'épaule yi mbër mi dóor na la ko dóor na ko papis waaw waxante yooyu noonu ci biir géew. boo bon man nag man bu ma dóoree coup d'épaule. coup d'épaule bon dama jàpp ne day foo rek. bon man kiw ko ci quoi man jégal naa ko ko loolu dara. jégal naa ko ko quoi. bi mu ko defee papis si papis xaw naa gis boppam ma ne ko noonu lii du dara day fo parce que man yooyu méttiwul quoi. mais na rafetul aussi. Euh, ñi nga xam ne da nga war a bëri ak lu ngeen mën a seq aussi bu ñëwee ci géew bi ngeen sorante moo gën quoi. Hmm. waaw mais man moom li ma def jéggal naa ko ko. jéggal naa ko ko. bi mu lay dóor coup kii day foo wala. man damaa tourné seen ko mu dóor ma daal di jàll <laughs> ma daa di geesu après ma ne at bi non non non amul benn problème bu leen wax bu leen yëngal nañ bàyyi noonu rek garaaw nañ bàyyi def na li muy def. Hmm? bi mu ko defee lan nga gis gis si kanam non man maa jàpp loolu mais xooluma kanam gi sax ba ma ko defee laa gëj a xool ba ko defee laa gëj xool. Mhm. mais jéggal naa ko. ci moment bi ngay sotti butéel beeg ko doon sotti ci suuf noonu rek moo doon ma ko jox ma ne ko xam ma sotti nii ma sotti nii rek waaw mu ma rek daal may dóor coup de coup d'épaule. Mhm. Mhm. moment la Modou réactionné. non bëgguma sax ma dugg ci. loolu moom jërul tension jërul coow man la ko def metti liwu ko garaawul yoon Modou Lo du ci dugg. du déedéet. mais gisoon ne lii xaw na déranger du tuuti wala. ah mais du ko neex nga ñëw sa entraîneur taxaw sa adversaire ñëw di ko dal ci kawam du ko neex mais garaawul bu ma ne ko garaawul garaawul. waaw mhm. ah, Modou sax heureusement bu ma fekk na xaw ma sori tuuti quoi. Mhm. Hmm, mais garaawul mais garaawul. Hmm. Euh, ci biir géew bi werante beeg waxante yooyu doon dégg ay kàddu euh, lan nga ñu si mën a partager tuuti ak Sénégalais. pourtant loolu loolu dara amu fa ah. parce que Siteu mi ngi woon ci ay bagages xëy na léeg mu dajeeg Modou Lo yooyu ñu am lu ñu échanger loolu moom ci bëri la bokk. mais benn kàddu gu ñaaw amu fa nag de. Mm. non non waxante wuñ ay kàddu ñaaw de. parce que biir géew bi moo tamit saay-saay la léeg mu sànni ay pic parce que ñoom ñaar bu ñu dajee ci géew bi Pape est dina yomb. ah loolu diggante ñaari mbër mbër loolu amul problème li am li li li ci baaxul daal mooy wax yoo xam ne tey jii comme ay kàddu yu ñaaw saaga yooyu te yaakaar naa ne yooyu moom def naa mbër yu bari dépassé nañu ko amul solo daal. Mm. amul solo l'essentiel bi mooy li ñuy xaar bu jotee kenn ku ne def Papis ak Siteu ñuy wax seenu gaayandoo démb làmb ci moment boobu noonu mel na ne ku ne sa bopp nga tal. ah déet waaw amul sentiment kay. waaw foofu sax mu Siteu mën na ma koo def man ma comprendre mais bu ko defee Papis du ko neex Papis indi mbërëm pour mu daan ko mën nañoo bokk lu ñuy bokk mais. bu dee nag wàllu làmb la ngay bëre koo xam ne ni saa yi daanaka papis mooy Modou Modou di papis. waroo mm. sax moom sax xalaat di jege papis. xool sax bu ko defee xolam du neex parce day bëgg Modou daanu. loolu kay day bëgg Modou daan ko. waaw koy ko ah mais kenn waxatu ko. Hmm? kon démb boo calmé woon Papis mënoon na indil xam naa sax du def la mais booba après Modou la waxal quoi mais nan li mu wax Modou man du ma ko wax mais sama ka no Papis. Hmm. bi ko Siteu eh, coup de coup de coup de pôle. Hmm. coup la waxal mais li mu wax Modou man du ko wax. waxul mais yéen Papis gis na boppam mu mer lool ma ne ko waa garaaw lii du dara demal dara demal. Euh, moment yooyu noonu biir làmb euh, kan moo ci ëpp chance ci ñaari mbër yi yu mel noonu bu dee xew ci làmb en tant que coach. ki ëpp sago ki ëpp sago rek mais ki ki ki kiy meeraale di bë di ko ko bëraa bëriwaale kooku moom ay chance am day wàññiku mais lu mën a am ak lu ñu mën a def ci biir géew bi jëlal sa temps taxaw jàkkaarloo sa adversaire fàtte li nga xam ne jaar na fi sa adversaire mën na xëpp saafara sax arbitre bi gis ko signalé ko. mais bu ko def ci sa xel fàtte ko li nga xam moom nga waaj waaj ba jekk war ko war indi ko boo ñëwee ci loolu bu ma war a nekk sam xel waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Modou dañuy seetlu chaque combat day njëkk a pare adversaire am loolu lan la. làmb day fekk boobu mu pare avant mu ñëw ci géew bi avant mu ñëw ci làmb ji day fekk mu pare soo paree avant nga ñëw ci làmb ji boo paree doo sonoo sa entraîneur doo sonoo ñi lañ ñi nga àndal mm-hmm. mais boo ñëwee toujours di yàq a pare nii pare woo woon. làmb lañ koy pare avant ngay ñëw mbër bu pare day yàkkamtee dem làmb yàkkamtee dugg géew yàkkamtee jàkkaarloog adversaire am mbër da ngay pare dangay daan ak doo daanoo yàlla xam l'essentiel mooy li nga waaj boo jëmee moom rek ngay appliqué waaw mais da ngay pare ngay pare ci tax Modou saa su ne rek muy njëkk pare mais loolu lan la siy gagné parce que ñu bëri dañ naan da si am avantage mën a am jàng lu bëri ci biir làmb ji mooy li ma la wax rek pare rek làmb daal moom da ngay daanu doo daanu yàllaa xam mais li nga xam ne nii mooy ci am solo mooy waaj ba nga xam ni léegi da nga naan dara manqué ma dem làmb yaa ci des boo demee nag la ca des ay réglage la rek li solo mooy arbitre sifle nga ñëw taxaw jàkkaarloo sa sa adversaire mm. mu sifle nga appliqué li ngay appliqué waaw mm-hmm. ah, pare boo dee daan da ngaa boo dee daan da ngaa war a pare boo dee daan da ngaa a mbër day pare mbër yi ay jàmbaar lañ bu ñu doonee ba ne la mbër nga rek jàmbaar nga kon bët day pare. bët day pare. pour mhm. su ma ñëw nag ci biir li nga xamante ne mooy làmb ji arbitre bi sifflé ñu gis ñaari mbëri di léwétoo euh, première kii bi nga xamante ne moo fi am accrochage bi gis nañ ni mu demee nga jàngate nan làmb ji démb si ñaari mbëri. ah waaw round d'observation bi yàgg na après Modou loo commencé asso yi daal di koy attaque xeex ñu xeex xeex te daal di arrêté génn géew bi. noonu daal doon naa wax ne combat yëpp yëpp noonu la demee ah bu ñu xeexee Siteu day dem géew day dem arrêt day dem ci saako yi. Mhm. noonu la demee ba combat bi jeex. Mhm. daanaka benn trois minutes yooyu rek la Modou Lo téye combat bi temps bi daal di jeex. Mhm. ak bi jox ko victoire loolu daal bon gisuñuy fóolu jiw loo xam ne jar na débat. yaakaar naa ne loolu kese moo fa. ndax gisoon nañ fi lu jar débat da ngeen xaarul woon lii wala lan la parce que gis nañ euh, kàddu yi nga xamante ne jokkalante nañ ko ci seen signature ñoom ñaar. waaw kay moo taxoon ñun lañ doon xaar nag gisuñu ko. lan ngeen doon xaaroon nañu Siteu boo xam ne bu ñëw dañ Siteu bu bees tax Siteu boo xam ne dañ koy waajal ba jag bu ñuy appliqué ci kaw Modou Lo ndax déjà avantage bi mu am ci Modou mooy moo ko donc moom bu bëggee bu bëggee bu bëggee daw combat bi day yomb ci moom Modou Lo li mu doon def dem lu mu ci yokkaatoon tuuti rek yàq làmbam parce que pour mu jàpp Siteu difficilement problème lay doon parce que Siteu da koo su te di sa day arrière. Mhm. am na benn instant Modou Lo téye na ko ci loxo ba daw dëbb ko sol Siteu téye téye ko Modou Lo dindi sol bi jox ko jox ko yaram bi sax pour bëgg ñu bëre. xeex nañu muy daw jàppante nañu mu jox ko yaramam ne kaa ñu bëre ba tey mu téye taxaw nangul def dara amee ah, lu ñu ci mën. Hmm. Ah, ah, ubbi na lépp. sàcc sax kay sawaay boo gisee mu ñëw nga ubbil ko sa néeg na ko dem nga sàcc dara doo ci fekk dana dem sàcc ji ndegam sàcc ko tax a jóg ah waaye waxante dëgg bu ko saa ah, ah sàcc sa kër nga ubbil ko néeg mu ne ko dugg sàccul la neex dara doo ci fekk te sàcc ko taxoon a jóg mais dina sàcc dem yoonam te ubbil nañ ko lépp. ubbil ngeen ko lépp ah ubbil nañ ko lépp moo jëlul ay responsabilités ah en tout cas daal kenn xamul daal moom daal mi ngi doon ñoo ko gisandoo. Hmm. maa ngi koy fi maa ngi koy encouragé a yokk liggéey parce que dafa bokk waaw nañ ko ñaanal mu gën a yokku. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaw mu gën a yokku liggéey bi moom laa koy conseil na gën a yokk liggéey bi dafa war a imposer bokk ci làmb ji parce que xale la màgg na mu ngi dugg na cour des grands. Mm-hmm. na na na na kii na na ñëw góorgóorlu parce que contre la dëggee nii la terminé contre mu la terminé nii te loolu baaxu ci champion bi Siteu ndax dafa def dara ci làmb. maa ngi koy encouragé bu baax a bi Modou xeexeek moom bañ génn sa bi ba arbitre atte nga jug fi nga toogoon daw xëcc Modou naan ko dalal dalal lu tax moment yooyu. waaw parce que daf euh, instant yaram bi tàng na te gisul Siteu di bëre te moom bëgg nañu imposer Siteu ko dañuy bëri jóge fi te loolu aussi erreur la mën na ci juum daanu te Siteu neexul moo moo moo loo bëgg da koy song mais du ko mën a jot ndax rasu ba muy rasu mooy sori ba pare day dafa am recul Siteu daanaka arrière la gën a dafa mel ne arrière la gën a préparé combat bi. parce que fu Modou Lo ne bëri rek du ko fa fekk ah loolu nag. il fallait que kon donc tamit nga wax ak Modou Lo aussi mu mu ànd ak dal ko mu ànd ak dal. démb gisoo ni def na benn exploit parce que lu ñu bëri mënul am ci Modou xaw na ko am. non loolu mais lii du exploit. ban exploit. bu fekkoon dafa taxaw rayanteeg moom ba match nul wala ba mu ci biir def def li mu war a def ñi mu daan ñëpp est-ce que di leen daane Siteu ñi mu daan ñëpp daane wu leen nii dafa ñëw bëri seen kaw daan leen. fekkoon dafa ñëw affronté Modou loo ñu dema dem ba temps bi jeex tàkk ñu ne ko sax am nga deux avertissement yaa ñàkk combat bi d' accord mais ana lan lañ mën a lañ lañ ko a tegal loo xam ne ni ko ci kaw Modou Lo Modou mu fayu bu fayoo arrière Modou Lo topp ko ba mu xoo ba mu ba mu dagg ko fii euh, ak weyam. wela wala coup. coup fan coup koy boo ko doo ci kanam day la mais c' est normal arbitre bi dañ ne ko bu arbitre bi réglement soo ko boo gisee luy nàcc rek arrêté le combat lañ bës bu ñëwee médecin bi alcool bi lay fomp rek na ko demal. fomp dañ ko doon fomp rek xureeku la bàyyil ba gis Modou Lo ma hmm. xureeku la hmm. waaw maa ngi foon. Hmm. Eh, mais ne lu nit musta def Modou Siteu moo ko def yóbbu ko ardo yóbbuwaat ko ardo loolu dégg nga même même xureeku boobu moo doon moo doon moo doon moo doon sañee bu sa yaram tàngee boo daggee sax day day kii surtout ma kanam. ah bu fekkee ne ardo bi ak match nul lañ ko bëgg a defal victoire kon moom moom moom. prochaine combat am lan la war a am comme victoire nañ ko encouragé que mu gën a góorgóorlu yokk parce que li mu li mu indi dem man bokk bu fekkoon may coach am damay. a bokk. war a bokk ci làmb nag waaw. monsieur na ci ginnaaw sox gi tamit na tamit si lu ñuy kaas parce que dégg nañ Max Mergan ci xam ne dafay déposer recours parce que Siteu dafa daan moom. mais maanaam action boobu lan moo fa feeñ lu lu war a tax recours déjà am na loo xam ne ni bu amee vaara nga fa xam nga recours tant que vaara nga am recours doom solo. Hmm. parce que trio arbitral yi nga xam ñoo fa toog ñu teg va ñu teg image yi Sénégal yëpp di gis stade bi yëpp di gis ñu xool na fii gis ñu fi jël. ba woote waat ñu bëre ah nañ def recours ban suite la bi ñuy ànd ñoom ñaar ci saako yi. Siteu boobaa Siteu boobaa ngi saako bi ñu ne ñu ngi naan am na fu mu la tegee mbagam xaw ma. yow koo xam ne yaa ngi ci biti noo mënoo mën a daane. nañ nañ ba moom waaw bon bu leen neex njëriñ ko mais nañ nañ xool règlement bi lu mu wax foofu ba pare. dégg nañ dem ku ci mel ni suñu père Tafa bu muy dóor Liss Ndiago Liss a ngi sibiti te ki moom mi dóor mi ngi woon si biir waaye nanguwuñu victoire combat victoire boobu. non mooy li ma la mënoo mënoo mënoo mënoo nekk ci biir di daan ci biti di daan ci biti ci biir la ñuy daanee la mbër. mais bu ñu xoolee Pokola bi ki ci biir moo dóor ki sibiti moo daan waaye dañ ko ne génn nga ba pare. gé dóor génn ba pare mosoo koo dóor. waaw waaw c'est normal waru koo dóor bu xasee ba génn saako yi noo jeex na bu fekkee ne action bu départ ci biir géew bi dem ci biti jël am fa waa kay mais bu fekkee ne par exemple tey jii xas nañ ba génn saako yi mais foofu amatul lu ñu àtte génn nañ saako yi. Mm-hmm. ah mais boo xam mais loolu règlement ki wax génn nañ saako yi bu fekkoon dañoo jàppante porté mais kii doon daw ba génn saako yi amaa doon yi ni mu doon amaa sax. si te doon daw ba génn saako yi di laaj victoire mais da ngeen ni cinéma wala ñun ñun ci salle de théâtre lañ nekk wala ci ci sport lañ nekk. ban recours. nañ ma ne am ma ne nañ ñëw ñu jox jël jël jël couronne beek 16 beeg yëpp jébbaleen loolu moo leen teree nelaw ñun depuis ñaata ñu ngi ko yor nañ jël ambition bi nekkatul ay couronne parce que am nañ ko ba pare ku ne am na ko fi ku ne nekk nga fi roi des arènes dañ ko fee fekk nañ ñëw jël loolu moo leen teree nelaw. Hmm. ci façon bi lañ mën lañ bëgg amee roi des arènes nañu xool seen mbër manqué ñu liggéey ko surtout war a lekk ci làmb Siteu moo ko préparé muy muy bëre mu Modou Lo dinaa ko préparé bu jàkkaarloo Modou Lo day toog ci tànkam samp jaaga lu Modou Lo baax mu ñeer ko xool Siteu ni mu toll moo ko sut fop di xale teg ci ba pare màggam na duñu liggéey ci booy mu ñëw liggéey dara ñu bëgg a jàpp booy bi ko àll bi ba mu kii ñooy bëgg sukkandiku ci ay man nan nga nan ngañ mën a ànd ñoom yaa daw ba génn saako ñuy lijjanti ay 4 appui 5 appui ginnaaw saako yi foofu amu fa dañuy arrêté combat bi combat jël ci biir géew lañ koy atte kii et moom Siteu am na fu mu foo xam boppam baa ngi ci saako bi dèjà bu doon saako boobu ci suuf la jëm kon saako bee a sot te ñoom ñoo fekk saako yi waaye mais nañ bàyyi li nañu liggéey ci booy am nañ champion. booy bi dafa def ay pro. <coughs> man de wax dëgg yàlla maa ngi doon séntu leneen quoi sincèrement bon critiqué wu ma leen nag dañoo bokk laam ji xale yi ñu ñoo leen jabatu kenn ku ci nekk doo jàpp sa mbër mbër yëpp buñ sañoon écrit bu ne am ay mullu ay balagay ñu tëgg ay événement muy neex parce que loolu de dundal làmb mais aussi du tey bu ñu gisee loo xam ne suñu xalaat kii na ko ñu échanger ci raw conseil la rek. Mhm. mais si te war naa mën a am dara ci làmb. waaw am na gabari bi am na njàmbaar gi bu ñu liggéey ci moom am ja mais ñun doon séddu dem wax dëgg yàlla gisuñu ko daal. gisuñu ko daal. Mhm. non non mhm. et puis Lansar Lansar yàgg naa génnee champion ay ñoom Tidiane Faye fëggal ak ne ko réel la booy man xamul fu ñu nekk mais ñooñu ay ñoom fëggal a dëkk ak yooyu ay Baye Ndiaye xaw yooyu. Salaan Sarr yàgg naa Guinée champion. kon yaakaar naa ne defar Siteu pour mu ñëw imposer ci làmb laaj wane boppam war jafewu leen daal di di ñaanal sunu tonton Aliou Diop mi nekkoon entraîneur te décédé yàlla oyofal ci kawam tabal ko àjjana góor gu baax mag mu yar woon ndeysaan ñu koy jaale bu baax di ko ñaanal. di nuyu président Cheikh Niang <laughs> président Cheikh Niang maa ngi koy nuyu di ko siyaar di nuyu mon frère Max Mbergane ak coach Lansar bi yëpp. maa ngi leen siyaar. Euh, Pape Modou 100 pour cent wër na ci biir géew bi est que parce que ñu bëri dañ doon wax euh, gisuñu Modou bi ñu daan gis am ñu doon wax wàllum sot ci làmb ji ndax Modou 100 pour cent woon na mystique xawul jàpp wala xawalaal Modou. waaw man xam nga domaine mystique du sama domaine mais Rock Énergie dafa am lu ñu tàmm ñun mosuñoo wuti ndimbal Modou loo xamul ay wuti ndimbal ñëwal jàppale yi mosuñu wuti ndimbal ñun li ñu am ci lañ ci la ñuy liggéey ci la ñuy reyante dem dàq suñu wërsëg. Mm-hmm. pour nga gis mu Modou Lo di bëri ñuy wuti benn champion wala koo xam ne dañ ko ràññee mu bokk feneen ñëw ci ñun musul am ñun duñu woo kenn li ñu am ci la ñuy jàpp di góorgóorlu premier combat ak Balla Gaye bi ko Balla Gaye daane ñu naan Modou Lo ay xale ko yor nangam nangam mu ne ne xale yi ma yor ba mu yegg si fii ñoom laa fa yéene àndal te boobu léegi ñu lay àndal yooyu moo tax bu ñu naan ay sot yooyu am na ci combat boo xam ne nii bu muy bëreeg Lac de Guiers Lac de Guiers parce que quatre écuries ko te boobu ñun dong ñoo fa nekkoon ñu match nii mooy seen premier ko match nii loolu après CNG ci la tërër génnee règlement ne la képp koo bokkulatul écrit doo ànd ak moom làmb ja mhm. kon yooyu ñun yàgg nañ ko dund quoi mais toog fi na na dañ ñoo sot dañ ñoo sot am na combat xam sax ñi ngi fa kooku diw diw manga fa mais yooyu ñun amuñu ko ñun moo tax yàgg nañ ko dund moo tax déranger duñ sax débat mais toll na foo xam ne comme que li mu yor ñëpp ko soxla ah mën nañ ko sóoraale ne mën naa nekk <laughs> mën naa nekk de waaye nag duñ tudd kenn wala ñu tuumal kenn nag hmm? waaw mën naa nekk. non dañ jàpp ne mën naa nekk moom. Hmm. maanaam sot bi moom mën naa nekk. waaye nag duñ ne diw moo diw la wala diw la wala diw la. Hmm. parce que bu ñu ko defee du dañuy juum waaye nag fi mu toll moom loolu mënuñ loolu moom duñ ko bañ sañta bañ la. te ku sañta bañ nangu. Hmm. waaw. ñu bëri ne làmb bu dee 100 pour cent 90 yëpp dañoo bëggul Modou perte couronne. mooy li ma la wax sànq dama ne xam nga mbër di nga toll foo xam ne boo comme que da nga ne ci kaw. boo daanu ci la làmb ji di ubbeeku toll na foofu nag waaw moo tax nag euh, luñ ci dégg rek lu doon loo xam ne ni sóoraale nañ ko ne daf mën naa nekk duñ ne nag am na wala defal na def nañu wala diw mooñ ko wala ñu tuumaal kenn mais dañ naan mën naa nekk c'est possible. situation yi toll nii ci Modou gëm nga ni dina bàyyi couronne bi. ah xam nga couronne moom da ko doon ñaan ba yàlla jox la ko. ah mais li mu yor ñëpp ko soxla ka duñ ko bàyyee ak moom duñ nañ ci jéem moom a góorgóorlu ba téye ko loolu kay moo fi am loolu kay du dara waaw couronne ñu ko soxla ñoom it dañ def dañuy dañuy def lu ñu mën pour jéem ko nangu ci yow yow nga jéem a góorgóorlu rente ba téye ko loolu moo fi am waaw. Hmm. Ah. Modou Lo a confirmé mu jëlee couronne bi. troisième confirmation troisième confirmation. sant yàlla sunu borom yàlla na yàlla xeb dool loolu lañ doon ñaan affaire moom sabab loola rek fii kenn du fa assuré kenn ne lii da nga koy am da ngay ànd ak nit ki ngeen sabablu man loolu laa mës a gëm Rock Énergie fii ku fi ñëw li ma lay wax boo ñëwee ci terrain bi xam ne liggéey ngi fi buñ la waajalee boo demee nga def sa fulaak sa fayda sa jom ñu xam ne nag loo fi am nag yàlla moo la ko may kenn yóori force bu kenn kenn taxul kenn am ndam kenn xamul kenn l'essentiel famille la booy boo leen fekkee da ngay ñoo bokk ndey moom moom Rock ku ku ku ku beru la. fii moom amul loolu famille man boo ma fekkee seen bi sax da nga naan seen morom la mm-hmm. loolu lañ gëm noonu lañ mës di dund ku ñëw bokk waaye nag règlement beeg écrit ni muy doxee ànd ci. Mm-hmm. mbëri doon say far say doomi nday ngeen di jëflante ku am sa bis mu doon bisu ñëpp. Mm-hmm. waaw loolu daal daan doon dundee di sabablu ba yàlla doo ñu egsi fii quoi. Mm-hmm. amul leneen. amul leneen Pape ci kàddu yi am solo yooyu noonu xam naa dernier mot bi la ñuy dugg rek daal di tàggatoo làmb moodu fan lañ ko mën a xaar moodu fu nekk nii pare na ci Siteu ñan ñoo ay adversaire Modou Modou ñan la war a mën a bëriwaatal. waata xam nga tey di nga toll foo xam ne ni làmb moo lay conditionné fu mu ku mu laa ku mu ko làmb boole rek mu bëreeg yow mm. mais daanaka jarul muy tànn amatul tànn. Mm. déedéet parce que ñaar ñoo fi nekk ñi bëri lu bëri na ak ñoom ñi musta bëril ñi ngi fi mais ku ko làmb boole rek. Mm. après moom mu xool. ñaar ko gis ni moom ñoom làmb la Tapha Tine wax wala Sa am ñuy waxaat pourquoi pas troisième fois mook Balla Gaye parce que boobu tamit bokku na ci li gën a ñor. est-ce que ñor na xam nga fi moom. gars yi dañuy xalaat ku nekk sa xalaat rek mais lu ci mën a am nañu dañuy déglu bu ñu dégloo nag ba wax ji daje après moom mu toog xool parce que tamit Modou Lo nekkatul xale bu ñu naan ko fii ngay jaar wala fee ngay jaar am na lu muy ressentir am na sant ci boppam yëg boo gisee face à face am Siteu ni mu doon waxee Siteu dafa mel ne sax dafa xamoon lu ne ko na nga taxaw ay yoonu yoon ba ci biir géew bi nee na ko na nga taxaw kon xam nga ne kooku am na lu mu am na yëg-yëg ci boppam c'est normal xar day weesu mbote donc yooyu ay ku mu war a dajal yooyu jëruñ ci débat moom sax. kum kum sentir nag war kooku la war a bëril. mais ñu jël ko. waaw ñu gis changement bu bees ci làmb démb bokk na ci li tax ñu génn guddee génn ci stade bi muy anti dopage bi nga xamante ne bu ñu paree dañuy woo ñaari mbër yëpp ñu def ko ñu gis ni démb du ñëw na def ko dem mais si tey gisuñu ko dafa dem ñibbi. ah waa anti dopage da bu ñu ko defee tamit dañuy dimbali mbër rek parce que dopage moom euh, ku koy def tamit doo def carrière. te ci góor it da lay jëme nit nag boo bëggee boo bañee def carrière jooni jooni da ngay naturel waaw naturel daal dafa baax quoi booy nañ moytu nañu xool li ñuy yi naan nañ ko bàyyi daal jéem waaw yi ñuy naan nañ ko bàyyi parce que carrière du benn fan du ñaari fan mais def loo xam ne tey ji benn laps de lay may kàttan après mu néewal la doole ba daanaka dootoo amati njariñ amul solo am na solo mais dañ ko def pour dimbalee ko mbër yi ko dimbalee sax mbër yi ko dimbalee taxaw def démb beneen mbër mi def. ah waaw moom mi dem na xaw ma lu tax mu dem quoi mais ki taxaw moom def na li ko sant. ko ci mën a fekk. ah loolu de wóoruma ci parce que règlement bi moom du man maa koy décider xam naa ni daal ki toog ki ñu ne da ngay toog ñu defal la test nga toog kooku def na devoir am ki dem na xaw ma la moo tax mu dem moo tax mënuma ci wax dara. Hmm. macha allah Pape ci kàddu yi ak waxtaan bu am solo bi ñuy seqoon ak yow à travers Sénégal Buzz 221 ñuy bëgg bu baax a baax a baax ci jotaa bi waaye di la gërëmaat ci disponibilité bi nga xamante ne aussi may nga ñu ko ñu mën a partager ak sénégalais yi nga xamante ne dañu leen di xaar ñu kontaan rek di la bàyyi nga joxe li nga xamante ne moo di dernière kàddu yi ñu daal di tàggat. kontaan ci yow vraiment euh, di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci làmb ji di ziare waa parcelle waa Rock Énergie rek 100 pour cent bi ñëpp mbëri ci parcelle yëpp maa leen ziar. di kontaan di félicité aussi mbër yi bëri woon bu ci mel ne maamadu Top Mamadou Ndiaye Anaconda ak beneen booy bi tur bi daf may réer quoi te bis mi ne ñooy nekk ak euh, di félicité aussi Modou Lo vraiment xale passel dem wane nañ seen bopp ci journée bi di félicité jàmbaar production di nuyu Père Ba di félicité Mansour Ba Papa Sow ak euh, assurance mm-hmm. ak équipe bi ñu àndal di liggéey yëpp organisation macha allah rafet na mm-hmm. sécurité bi macha allah doy na dispositif bi daal macha allah dara manqué wul. Mm-hmm. Euh, muy doon événement bu neex maa ngi leen félicité di leen ñaanal aussi yokkute. waaw ñoo euh, ci waxtaan bi ak kàddu yi am solo yi nga xamante ne seqoon nañu ko ak moom di kontaan bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.